واصلة منك إلى روح عبدك سليم صالح مك اللهم بلغ ثواب ما خرعناه ونور ما طلوناه من كتابك العظيم هدية واصلة متصلة منك إلى روح عبدك سليم صالح مك اللهم بلغ ثواب ما خرعناه وبركة ما طلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله أجمع أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وإخواننا وأصدقائنا وعلاتصاتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات أجمعين آمة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر وانصر من قتل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وطمئن لنا عمرنا في الدين ولا تسل قائدنا في الدين وكن لنا ولجميع من بها تعلقت حقوقهم يا ربي من زوجة أو ولد أو خادم أو أخ أو أخت بجاه الحاسم صلى عليه ربنا المجيب وآله وصحبه ومن يجيب ما دام يدحي الكرام وحده بفضل ينال منه خصده أنت الكريم الذي أبغيت كرمه يا خير هاد هلال أفضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا عليه خير الصلاة منك أن قبل فتحت لي كل باب كنت فاتحه لأوليائك يا فتاح يداه يا رب كل وكل برضا غردي ومن تمص بجاه المنطقه اني صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظم أفضل الرسل وبثرن بنظم أفضل الرسل وكن معيسا لنا من شر حصل مع سر فم وسر لعن الله وسر سحر وسر الخلق إنسهم مع دينه وسوات سمي الله إني جعلتك في الدار يا صحتي حسنا حسنا فكن ملجا يا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد وعلى آله وخير خديمه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام سلام هي حتى مطلع الفجر والسلام سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ما أعقل إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط المستقيم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الشيخ محمد أمين السلام عليكم ورحمة الله. مبقي فتاو نجلن نجيب بعض الزيارة. وبوب وبعد ونقدم تحية على أخي هذا صيح صالح. وننزلك رحبا ومحبوبا من حب شام محمد الحبي إلى صالح المحبوب. مرحبا بكم يا يا يا أخي صالح. وهذا يا أخي صيفي قاري المعظم المجلل في تاريخنا هذا شكرا لك يا صيد نيو نيو حضرات الكرام جميعا تاي نك امنا نبيكت لول تي بيس بيغا خامني يينينكو جاكلل مو يوم الذكرى لصيحنا المبجل عند وقتنا الصيح الجليل سيدي صالح مك في نفس الوقت نخيوان كسر سارة 1322 نخيوان كسر سارة سيري يوبالي ولي الخادري يوبالي ولي الرتيا يوبالي ولي الرزايدية ونعيان يالا بايكوتي fukki fane koor ju mujj ca Sarsara yàlla wax bi waasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jeex na xaasata te bi mu ko ko joxee ba noppi daa am lu tax mu jox ko ko ndax dem Ndakaaru fas ak dem Ndakaaru war sa oto bu neex bi nga yor yal na yàgg da koy bari la lool ndax ñun murid yi dinañu am ni moy rafet am ay kër yu rafet am ay jongom yu rafet ndax waqaytani zamaan wal hurriya ma azabin wa bi kitaabi lisi an sarka tasfini dañu ko fàggu ñu Serigne Touba li mu wax bu ñu ko mënta wax dañ ciy am bakkaar te loolu mooy lu wér buñ ci complexe ci dara xamit ku la ربي الذي وافقني ورزقني خدمة قبل للمصطفى حسنا بقول المصطفى خير رسول كتاب طريقة ناطقة كل الصبر سنساني وصصور وصول سري تبا دا وحنا ناسقة ناسقة كل الصبر مؤمن jox nañ ko micro mbaa ma jox ko bu ma yor bu yaa ngi jàng bay doo yaa ngi jàng bay doo tarixatan mat Serigne Touba dañu xas naa làq na ma noonu googu damiru mu tassil la làmb na fii la faañ kon ma foon bi ak jiri moo fay dox ma foon bi wala maa jàng ne la ma jàkkaarloo lu mu ñeme lay mu ni tarixatun sunu sama yoon wii te làq naa ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loo xam ni sama mbiri mbiram dootuñu teqalikoo mukk di ñàkk dëppoo lépp yonent bi ak lépp Sëriñ Tuubaa dëppoo ndax yu jaawiruhu kulli xadiman lahu bii bii sirtu saa xurbi waxat kuntu saa nat yi يصيرني كالآل وصحب سرمدا ولي قال سرا غاب عن غيره محي واو xam nga loolu boo gisee loolu tontu la yu sa yëru nii kal ali wa sahbi sarmadan tontu la xam nga lu muy tontu mooy dañoo wax ni saxaaba yi ñoo gën kurul ñoom gannaaw sayyiduna Muhammad Sëñ Tuubaa wax ni bu yonent bi jàllee maa gënal yàlla kon yu sa yëru nii kal ali tontu la parce que bu fekkee dangaa wax ni gannaaw rasulullaay seen borom seede na ni man Ahmadou Bamba maa ko gënal kurul rasulullaay soo ko waxee borom xam-xam ba day toog ne naan la saxaaba yee gën gannaaw rasulullaay mu daal di indi يا من جعلتني به مثل سعد بس ما أقول سهد لي له بأنه أهب لي من سواه والنبي بعد الأهب دي وخي لولو برم خم خم ينكو واخ سابا يفولين جالة مني يا من جعلتني به مثل سعد لفظا ومعنى دون دور وغر يسيرني كالآلي ما ألو من بقل مقبعي نويم وصحبي مقبع وكرايم sarmadal nag faw wala xada siran qabal xëy romb na leen ndax ndax dumma nisaami ila siyaani sihaabi hada fala rabbina fa yaa musiqal qalil fee la jaar ba yàlla fanal kër yi sëñ Sali dal leen yallahu ala mooy maa leen raw bi mooy maa gënal yàlla ku dul njoon ma xaabat maqam leen moo koy leen an siwal baaxi karim murid yàlla yàlla mi sàkk jàmm xamul man la kan Ahmadou Bamba xam nga sëñ Modou man mënu ma sax duma mën a ne nii acca doxalal waxtaan de waxal ba noppi waaye waaye kii nga bëgg a waxtaane suñ waxee mu doon àdduna ndax dégg nga ma asamaan si moo mësta góor gu amee ni ni borom Tuubaa kaw suuf si góor gu amee détermination maa nga ñëw avant moom maa nga ñëw fii ba àdduna bi tukki si Tuubaa la ëpp détermination moo tax ma yàlla jox na ma lu mësta jox ku baax jiitu woon koo tudd nag moom ci biir li may wax am na niveau yoo xam ne sax man du ma ci bëgg di waxtaane dama bëgg rek di maslaat gaa yi waaw waaye lahu xitaabi xablu rabbi habli maa lam yakun li saalihina qabli te boo demee lan am wa zakariya wa yaxya wa isa wa ilyas kullu ñooñu ay lan lañ min as saalihina maa lam yakun li saalihina qabli gënante gi da nga gis ni ne diwa gën diwa gën diwa gën diwa gën diwa gën sëñ Tuubaa nee na lu meuna gën yalla ko gën d'accord ngeen lu meuna gën rek yalla ko gën yalla ma tabal ci gënal gi te yalla wax rasulullah ci israël un kay kayfa fadalna naa wala bandin wala akhiratu akbar borom darajatin wa akbar taqdila ni taqdilu sil xudrati wal irada fadalani wa huwa li arada buñ demé ci niveau bi ngay waxtane gaay dina metti kon kon sama gaay lor mom ab mu xaddama la woon ci li ñu doon dalale li doon dalale sëriñ ndax wax na dëgg sëriñ Saalix li tax mu doy mooy ba góor yàlla yi di ay pàkk ba góor yàlla ay pàkk yu naat yu neex a bay ngir ñu man caa def gàncax ba góor yàlla yi di ay sufiya yu neex deug serigne touba Tuubaa radiyallaahu anhu da dan set duwal yi nga xam bu ca amé ay lèr ñu doonu yalla kess lola ko yu ko mbàkkam moy serigne Saliou mi serigne bi xeyna bëgg waxtaan kon lool doyna sekk ni mu ko waxee waye njambaram ak gi Sayxul khadim lola defena daw daaw ci lu bari waye nak da bokkul ci xel am ngan ba noppi ngeen bokku nap mu di la njëkk jóg bokkul ci xel kon nak Serigne Saliou mii dañu ne nag wax deug yalla rek faaw rek ñu waxtaane dara ci Serigne Touba ngir rek ñu xam ni li ñu jàpp am na te suñu noppi nak ñu delu ci yam delu ci teggin delu ci dal waxtane Serigne Touba jo xamne day def jeexital suñu xam waxtane Serigne Touba mo xam kenn ku ci nek nga am xas dut ni lima ma manqué woon ci sama julit dana ko defare ci waxtaan ba ma déglu ji woon waaye du furaa fa lañuy metté du dañu bëgg tamit keneen di japp ni lamu nek dañ ko wërulut ñun li ñu nekk la ñuy waxtaan sañ nañ ko waxtane nak ni ko yàlla def ndax loola da am nu muy def kon nag Serigne Salih tafadal defuñu ko mooy dafa toog adduna bépp di ko déglu mu wax ni jox leen ma ndaw ndaw ñëpp daal mu ne ma def ci ñoom la Serigne Touba daan def ci man bi settantaluñ baat boobu nag ku yorul la Serigne Touba yoroon mënoo def ci kenn la Serigne Touba daan def ci kenn nag Serigne moo yor la Serigne Touba yoroon si Sëñ Tuubaa yoroon rek mënoo def ci kenn la Sëñ Tuubaa daan def ci kenn mooy borom Tuubaa ah mais ma def ci ñoom la Sëñ Tuubaa daan def ci mag ñi yoroon li Sëñ Tuubaa yoroon ndax mën ngaa def la Sëñ Tuubaa daan def ci kenn la Sëñ Tuubaa yoroon la yor Sëñ Tuubaa ko ràññu garaat ya moo tax Sëñ Moussa Ka wax ni Seex Saali wooy donoy xalifa yi Bamba ma a ca Mbuur te booba ñi mag sëñ Saliou ci doom sëñ Tuubaa yaa ngi fi ñi sëñ Saliou mag ak fi sëñ Moussa Ka ni moo leen di doon ñoom ñëpp Cheikh Saliou yooyu doonay xalifa yi te ma nga Mbuur yor boot ya attan ba ma wax li tax ba Mbuur a raw ci réew mi doonay xalifa baa fa xel li meew mi te xarnu bi ba mu tolleeg moom dafa wax ni mboolem lu dooni saalihiin ci sowu jant ak feneen yàlla na Saliou di seen jant bu tiim waa xarnu bi kenn rek ci njabootug lislaam moo doon koo xam ni nekk na fi Makka sax d'accord ci gën ci àdduna bi Tuubaa nek bo dugusé nek ko fekk mo sol du la jaral ñent jundi bu fekkon da ngay dañ waxu la ni sëñ Saliou ma sol du la jaral ñent jundi bu tëdd ci lal bu ndaw teg tabouret bu ndaw tek kaamilu alcorane do ci nek lu jar cent mille climatiseur du tak mu yor milliard ci boko gisé gisee saxal bu dem ci xaliss ci yalla lay dem kenn ko ma sonoon milliardaire bo fi gis bo gisé xaliss ngay xalaat milliardaire bo xamni boko gisé yalla am na ku daan ñew ci moom bañ naan diw xalifu sëñ Saliou Bakka bis bi ko sé bay delu liko ko yalla nga doon xalif général dégg bi ko bu ñew ci sama kër xam nga kan ak kan lay ñak doon ko parce que kooku ak pal la ko jàppe waaye moom dégg nga fi mu li wax dégg nga fi mu nekkoon bul ñëw ci sama kër yow xam nga kan ak kan laay ñàkk ñeneen ñi may ñàkk xam nga nan lañ toll ci man ma door a doon xalif général des mourides pour boole bu doon programme xalif général ko ñaanaloon da koo génn kër ko bàyyi ko te kooku ak pal la ko tawoon waaye bis bi sëñ Abdou Khadir bàccee liggéey la wax li li li nga xam ne moo seede moom xaaru ko woon mooy nii ñuy def bu doon dëgg rek ñu si ñu ko di sama Cheikh Rafal ba mu doon bàyyi kuy nelaw di denc di ko fàttale di jaalu mbay mais nag cas cas dëgg ci asamaan la doon seen bàyyi. xanaa xamoo Cheikh Rafal bi Sëñ Tuubaa gërëm rek war naa xam ni war naa tax loo xam ni Sëñ Tuubaa amul morom góor gu mel ni Cheikh Rafal amul. maam Cheikh Rafal góor gu mel ni moom amul moom aboo di jaalu laay moo daa gis borom Tuubaa di gërëm kon borom Tuubaa kan la. yàlla aljuma di teg gaaw bu sumb loolu liggéey lamb ja tas wax ko ñetti yoon te du ngeen ma laaj ku daan mu ne ko ku daan mu ne di wax ku daan kuy teggi waaye ba lamb ja tasee yàlla sant na ma ñetti yoon rasulullah sant ma ñetti yoon sëñ Bamba sant ma ñetti yoon keroog laa raw bët raw xel ah keroog bët raw xel yàlla sant ko rasulullah sant ko sëñ Bamba sant ko waaw ki ko woon di wax mu gëlëm ba dégg ko kooku kan la xam nga ne xarit yàlla man loolu de ko def ma na ma dem sama kër sol yeneen yére ñëwaat ci rang bi di rang ñu koy joxi tànk muy bind ba ma tolloowaat ak moom bu felaat sama tànk ni ma xëy da ngaa jàpp ni xàmmeewu la xàmmeewu la naa la doo fekk déwén nee ma daal di jaaxle toog di ko xool rek ne la muy wéyal li muy def li wéyal li muy def ma yaakaar ni fàtte na ma mu toog ba mu yàgg a yàgg a yàgg sëñ Ba la gëstu ma ne ma ma dimbali la dee. nee na ma daw li jël ci ba am fanweeri dërëm ñëw jox ko ba nee na sëñ Baara wéyal muy def waaye duub fanweeri ci kanamam nee na su xoolee ba gis oyof mbubb mel ni Saliou Samb mu xam ne kii yittewoo na a mel mu dagg dara ci fanweeri yi nee di ko def ba xaalis ñoo ko joxoon jeex tàkk mu continuer li muy def ba war a ñaan daal di gees ni ma xëy dërëm bu ne defal naa la ko am at day sëñ sooy bu nee na wóor nga ñu ko teraan bii la am fanweeri at sëñ sooy bu nee na ren at taat moom la góor boo ko fàtt kookoy sëñ Baara Mbacke kon salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته